وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول ما يحرم ستة أولا استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل ثانيا في قارئة الطريق والظل وموارد الناس ثالثا وسط القبور رابعا في الماء الراكد خامسا في المسجد سادسا الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام الدابت الثاني ما يكره أربعة أولا الكلام في أثناء قضائها ثانيا البول في محب الريح ثالثا استصحاب ما فيه ذكر الله رابعا الاستنجاء باليمين الدابت الثالث ما يستحب ثلاثة أولا البسملة والاستعازة قبل الدخول ثانيا تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ثالثا قوله غفرانك بعد الخروج
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته buntu tey bi mooy baabu qadaa il xaaja dafay bunt boo xam ne dafa jëm ci itte joo xam ne doomu aadama daf koy ittewoo ak lépp loo xam ne lu ñu tudde xayawaan la muy lu yàlla bind muy dund di lekk di naan faw lii lekk ak a naan dafay aajowoo loolu yi muy lekk ak muy naan muy génn ndax su génnul rek lor la koy andil joo xam ne kenn xamul nu muy nu muy demee tax na bokk na ci yërmaande sunu borom tabaraka wa taala mooy doomu aadama ji lim lekk la cay am njariñ mooy génn dem ci deretam la ca amul njariñ sunu borom tabaraka wa taala génne ko munt la nag boo xam ne lislaam dafay diine joo xam ne sàgganewut lenn ginnaaw laab dafa doon bunt bu am solo ci dundug jullit bi doon bunt bu am solo itam ci ay jaamu yàllaam moo tax sunu borom tabaraka wa taala bàyyiwul dara ci diini ji dem na ba ci nit ki ni muy faje aajoom ñu jàngal ko nu mu koy defe lan lañ ci bëgg ak lan lañ ci bañ ak nan la gën a selle mu defe ko noona moo tax ci xadiisu salman al farisi benn yahudi dafa mas ñëw ci moom muy ab juif ne ko yéen de seen diine ji dafa mel ne bàyyiwul dara seen diine ji dafa mel ne bàyyiwul dara Salmaan ne ko bàyyiwul dara de jàngal nanu sax ba ci nit ki nan lay faje aajoom maanaam su diine doon am lu muy bàyyi kon mën nañu bàyyi nit ka nag bu duggee ci wana wa ñu bàyyi ko mu libre ba ba muy génn waaye bàyyi wuñ ko sax mu liibar bu duggee ci wana wi dañ ko jàngal nu muy def nga xam ne ci lay gën a seetle loolu liñ ciy jële mooy diine joo xam ne sàgganewul nit ki ci benn situation ba ci bam nekkee ci biir wana wa kon xam nga ne amul beneen tomb boo xam ne diine ji dana ko bàyyi moo xam ci pas-pasam la aju wala dafa aju ci ay jaamu yàllaam wala dafa aju ci ay jikkoom daf lay jàngal ne kon diine ji lépp lu mu jàngalewut nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna xamal ne loola bokku ci ndax bàyyiwul dara ndax ku lay topp ba ci biir wana wa ak la nga fay def mu naan la defal lii bàyyil lii defal lii bàyyil lii kon jooje diine xam nga ne lu aju ci say jaamu yàlla amu ci lenn lu muy bàyyi lu aju ci sa pas-pas amul lenn lu mu ci bàyyi kon baabu qadaa'il xaaja mooy buntub faj aajo faj aajo lim ci jublu mooy buntub dem wanak maanaam dem ca toilette ba wala dem ca douche ba loolu lay firi bunt bi nag buntub ay tegginam la ak lu ci aju kon mu ne wa fiihi salaasatu dawaabit bunt boobu ñetti tënk ñoo koy tënk benn tënk bi dafa jëm ci yi nga xam ne dañ koy tere maanaam dafa xaraam ñaareelu tënk bi jëm ci yi nga xam ne dañ koo sib maanaam baaxul dañ ko war a bàyyi daal waaye àggul nag ci xaraam beneen bi ci des am yoo xam ne dañ koo sopp maanaam dañoo bëgg nga def ko ndax boo ko defee moo gën a sell moo gën a dëppoo ak i teggin te itam daga ci am tuyaaba kon ñetti tënk ngoog lay xaraam ak lañuy sib ak lañu sopp mu tàmbalee ci liñ xaraam mu ne waxiya sittatun daf ne rek sittatun waaye nattale ba mooy waxiya sittatun maanaam juróom benn la juróom benn yëf yoo xam ne dañ ko xaraamal ci kii dem ca wana wa mu def ko juróom benn la tudd sax waaye am na bu ko juróom ñaareel boo xam ne danañ leen ko fàttali buñ ca àggee tomb ba ci jëkk istiqbaalul qiblati wastidbaaruha bila xaail istiqbaalul qiblati mooy jublu qibla wastidbaaruha su daa waroon wax ne aw istidbaaruha walla won ko gannaaw kon tere nañ nit ki faj aajoom muy jublu qibla mel na kuy julli wala mu won ko gannaaw direct jox ko gannaawam loolu itam tere nañ ko mu ne nag bilaa xaailin su fekkee ne fa mu nekk amutu wërmbël maanaam amut lu ko wër su fekkee nag daa am lu ko wër comme duus yi ni muy mel léegi su boobaa àtte bi dana leer ci kanam tuuti waaye ki tax muy wax foofu mooy ki ne ca àll ba ki ne ca ndànd fay-fay ga nga xam ne daa génn dem ca àll ba di faj aajoom kooka la ñuy wax ci àtte bii xam nga ne ci ay jamono ñàkkul sax fu muy am ba léegi ci dëkk yi ci àll bi sori lool ne nit ñi bu ñuy faj seen aajo dañuy génn dëkk ba dem ba ca tookër ba maanaam àll bu sori ba ñu faj foofa seen aajo dellusiwaat ci kër gi waaye léegi xëy na ay duus tasaaroo na ba kër yu bare bari am na fa muy ci àll beeg ci taax yi waaye bu jëkk mbir yi noonu la woon rawatina nag jamono yi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale lii moo tax jublu qibla ak won ko gannaaw ci faj aajo dañ koy tere ndax kaaba gi dafa doon luñ màggal dafa doon luñ màggal loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa am fu mu ko teg moom rek moo jàkka moom la tudde ab néegam ci kaw suuf inna awwala baytin wudi'a linnaas illa allati bi bakkata boo teg ca ne mubaarakan maanaam dañ koo barkeel kon mooy néeg bi yàlla jëkk a am ci kaw suuf jàkka yi ci des yépp doora ñëw kon kooku am na orma jum am jublu ko ci faj aajo doyadal ko la won ko gannaaw itam doyadal ko la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis ba mu ne ida ataytumu alxaita fala tastaqbilu alqiblata wala tastadbiruha bi xaitin aw bawl walakin charriqu aw garribu noonu la xadis ba tudde ci saxiixu buxaari ak saxiixu muslim yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu fekkee ne da ngeen a ñëw ca àll ba ida ataytum alxaait alxaait day firi ab àll su fekkee ne da ngeen a dem ca àll ba di faj aajo nee na bu leen jublu qibla wala tastadbiruha bu leen ko won gannaaw it nag walakin charriqu aw garribu mu ne waaye na ngeen jublu penku wala ngeen jublu sow na ngeen jublu penku wala ngeen jublu sow bu leen jublu kaaba ga bu leen ko won gannaaw nu nuy def kon mu ne jublu leen penku wala ngeen jublu sow loolu amaana mën naa xaw a jafe ci nun tuuti nu dégg ko fii nu nekk waaye ñam ko doon waxal ñu nekk ca Madina loola jafewut a dégg ci ñoom lu tax mooy Madina kaaba gi daf leen a féete ndeyjoor maanaam sud waa Madina bu ñuy julli sud la ñuy jublu bu doon fii da ngay wax ne nii la ñuy julli jëm kon su fekkee dañoo jublu julli jëm ndey joor nga xam ne foofaay kaaba gi suñ ko wanee gannaaw dañuy julli jëm fan dañuy dañuy faj aajo jëm fan dañuy daal di jëm noor maanaam fi nga xam ne mooy càmmooñ mu ne kon bu leen jublu ndey joor bu leen jublu càmmooñ noonu def mu ne kon jublu leen penku wala ngeen jublu sow loola day daal di leer nañ ñi ci waa Madina kon bu doon fii bu doon fii soo waxee nit ña ne leen bu leen jublu xibla bu leen ko won gannaaw loo leen di wax da nga naan waaye na ngeen jublu siddkat wala ngeen jublu noor jublu leen ndeyjoor wala ngeen jublu càmmooñ waaye bu leen jublu xibla ndax li ko waral mooy sun xibla mooy sun sun penku safaano xibla mooy sun sow kon loolu moo tax nga xam ne atte sharia yi am na ci yoo xam ne daa tënku ci place boo ko tuxalee ca place booba faaw nga soppi ko ngir mu dëppoo ak beneen place ba ca des te su boobaa soppi woo atteb lislaam waaye da nga ko appliqué ni nga xam ne noonu lañ ko santaane su fekkoon ne nit ki daa nuur rek ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam kat nee na walakin sharriqu aw gharribu jublu leen penku wala ngeen jublu sow kon man penku laay jublu wala sow kon boo ne cëpp fu mel nii da nga gëlëm ndax doo xam ndigal loolu ak tere bi noo koy boolee ndigal la mooy sañ ngaa jublu penku wala sow waaye nag bu jublu xibla kon defe naa ne loolu dafay daal di leer lool mu ne nag bilaa xaailin fi mu jëlee ne fi mu jëlee ne nit ki nga xam ne day faj aajoom atte bi ñuy tere jublu penku ak won ko ak won ko gannaaw dafa yam ci ña nekk ca àll ba waaye nekk ci biir kër gi bokkuñu ci fañ ko jële mooy beneen xadis boo xam ne abdullah ibnu omar ibnu alxataab moo ko nettali nee na dama yéeg benn bés ci kaw néeg xafsa néeg xafsa mooy dooma mooy mooy ab jigéenam magam bu jigéen séeram ne dama yéeg ci kaw néegam di soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam nee na ma xelmati gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca wanawa muy faj aajoom xam nga ne duus yiñ doon defar ca jamono yooya dafay nekk benn urmbal boo xam ne li ko wër lépp fatt nañ ko ba ki nekk ci suuf du ko gis waaye amul woon nag ci kaw lu ko muur moo tax boo yéegee ci kaw terrasse bi ki toog ci biir urmbalam di faj aajoom da nga koy gis mu ne ma gis yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu jublu qibla ma gis ko mu jublu qibla kon foofa lañ jëlee ne ndekete kat ki nekk ci biir albunyaan ci biiri tabax wala ci biiri sàkket nga xam ne dara da koo wër muy faj aajoom kooku bu ko neexee mën naa jublu penku wala mu won gannaaw qibla wala mu won gannaaw qibla wàññiwul dara loolu foofa la jële lii mu wax ne bila xaailin kon araam na ngay jublu xibla wala nga koy won gannaaw te fekk yaa ngi faj aajo bila xaailin ci lu dul kiiraay wala lu dul urmbal lu dul dara daf la war xadis boobu abdullah ibn omar nettali foofu xadis bu mat di taxaw lu bare bare la danaa di faral di wax ne ak yonent ak yonent ci boppam lu metti la ndax day doon koo xam ne day dem ba mbiram li ñuy tudde sutura amatu ca maanaam luy làqu ci mbiram amut ndax léppam lu ñu war a xam la ndax léppam lu baax la lu yàlla bëgg la nit ñi dañ ko war a xam ngir bëgg koo jëfe su fekkee ne safaan bala dafa doon loo xam ne dañ ko bëgg a xam ngir war koo bàyyi kon nag kooku mbiram lépp dafa war a feeñ kon bul ne bii saxaabi bi dawaay moom amuti teggin wala yaruwut lu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci wana wi mu yéeg ci kaw terrasse bi gis ko ba noppi loola doyatu ko mu wàcc nag di ko nettali jamono yim koy nettali jubluwu ci wuñ wuññi awra waaye diine lay jàngale booba diine lay jàngale loolu bokkut ak keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo waxee lu mel noonu ci moom suñ ko déggee mën nañoo jàpp ne kii ak ñàkki tegge la defe naa ne ku taxawoon fii di waxtaan ci sëriñub diw ne ba ma ko gisee mu nekk ca wana wa day nangam ak nangam ak nangam nangam bootul nit ñi danañ daal ci sa kaw ñu ne kii lu tax muy wax loolu ci sëñ bi wala mu wax ko ci baayam wala baayub keneen coow lay daal di indi lu tax mooy ñooña seeni jëf yi dadul diine kii nag jëfinam day diine xeet wi war koo xam moo tax tomb bu am solo bu mat di taxaw la foofu ñaareel ba ci ñu araamal fi qaariati tariqi wa zilli wa mawaridi nnaas qaariatu tariq mooy diggu yoon diggu aw yoon wa zilli mooy keppaar mooy ker wa mawaridi nnaas ak foo xam ne nit ña dañ fay toog yooyu dañuy tere ko fa faj aajo ku dem ba soxla di faj aajo moo xam da ngay tuur ndox wala da ngay tuur dugub sañoo dem ci digg yoon wa nit ñuy doxe nga di ko fa tuur sañuloo dem ca ker ker goo xam ne ku bëgg a féexlu fa ngay ñëw di fa féexlu nga ñëw di ko fa tuur sañoo dem ci foo xam ne nit ñi dañ fay toog di waxtaan itam bu dul woon ker sax sañoo ko faa tuur kon ñu xam ne lislaam ci wàllu li ñu tudde xay ak set daf ci jiitu mboolem lu ñu tudde ab civilisation ndax lii de bañ koy jàngale ak léegi léegi junni at yi ak juróomi téeméer léegi mu mat ñu lay xamal ne aw yoon maanaam mbedd mi sañu loo loo bale ci sa mbalit ñëw sotti ko ci mbedd mi moo xam lu jóge ca gone ya la moo xam lu jóge ca mag ña la moo xam mbalit mu bon la moo xam faj aajo la kenn sañu te dikk ci mbedd mi nga xam ne waa public la ñépp a ko bokk nga ñëw di fa tuur loo xam ne lu salte la nekke noonu ker gi nga xam ne nit ñi dañuy ñëw di fa toog di féexlu si moo xam ab jardin la ndax léeg-léeg mu am foo xam ne jardin la boo xam ne dañ koo defar rek mu doon ay ker am ay chaise am nangam ku bëgg a noppalu foofu ngay ñëw kenn sañ te ñëw di fa tuur lu salte na set wecc dafa mel mel ne biir kër ga na mel beneen bi mooy mawaare di naas lu mel ne garam place boo xam ne nit ñi dañ fiy bokk di toog di waxtaan moo xam lu ñuy waxtaane mais fuñ soxla la foofu itam kenn sañu faa tuur loo xam ne lu salte la kenn sañu ko faa def kon faj aajo ci béréb yooyu chariatul islam daf koo xaraamal wax faj aajo nag nit ki dikk toog fa di ko fa def ak mu defe ko feneen ba noppi ñëw tuur ko fa ñooyam maanaam wuutewut ndax mën nga ne nit ki kat mën naa rus amaana du ñëw ba ci digg yoon wi mu toog fa di ko fa def ndax léegi nit fekk ko fa waaye nag mën na ko def feneen ba noppi ñëw sotti ko fa dem yoonam comme ni ko nit ñi defee tey ñetteel ba nee na wasatal qubuur ñëw ba ci biiri xabru ay armeel ay cimetière nga nga di fa faj aajo kooku shariatul islam daf koo xaraamal ñëw na ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xam ne Uqbat ibnu Amir moo ko génne abu ibnu Maaja solo ko Cheikh Muhammad Nasiruddin al Albani wéral ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na may dox ci kaw ay xal wala may dox ci kaw jaasi jaasi joo xam ne dañoo tàllal ñawka bi ma jaar ci kaw di dox loolu day mooma taneel may dox ci xabru boo xam ne ab jullit lañ fa suul maanaam jaar ci kaw bàmmeelu jullit di dox ci kawam nee na kay def loola nag wuute wut ak ki nga xam ne amatul lu muy faale fa day faj aajoom ci kawi xabru wala mu koy faj ca marché ba nee na ñooyam ki nga xam ne day dox ci kaw xabrub jullit nee na bonaay ba nam bone mi ngi mel ne ku jógoon di faj sa aajo ci kaw xabru ba wala nga dem sax ci digg marché ba faf di fa faj sa aajo kon koo koy musiba mu mag a mag la kon xadis boobu moo lay won ne faj aajo ci ay xabru itam dañ ko xaraamal ndax doomu aadama ci boppam dafa doon ku yàlla ormaal ku yàlla teral bi muy dund ak bi mu dee kon kenn warta fekk fa mu faatu tëdd fa ñi di ko doyadal xam nga ne yu mel ne musiba yi ngeen di dégg léeg-léeg ñu naan ay nit dugg nañ ci xabru yaag sulli nañoo dagg nañ fi ak def nañ nangam kooku musiba la moo xam ne xeet wu toll foofu bu nekk war naa seetaat boppam ñeenteel ba ci yi nga xam ne dañ ko xaraamal moo di faj aajo fil ma'i raakidi ci ndox moo xam ne ndox mu sax la ndox ndox mu taa ñaari xaaj la am na ndox moo xam ne dafa taa waaye day daw di dem mooy almaau alladi yajri comme lu mel ne dex day daw di dem géej day daw di dem boo fa taxawee da ngay gis duus ya muy dem waaye nag lu mel ne ndoxu déeg nga xam ne benn xóot-xóot lay doon boo xam ne bu tawee ndox ma day dikk nekk fa rek amul fenn fu muy déplacé di fa dem foofu daal lay sax ba keru muy seey ndox moomu la ñu tudde almaa urakid kon ndox mi sax benn béréb te déplacé wul dawul jëm fenn chariatul islaam xaraamal na nit ka ñëw di faj aajoom foofa sañu faa tuur ndox sañu faa tuur itam dugub kon kooku lislaam tere na ko ñëw na ci xadiisu jaabir bi nga xam ne muslim moo ko génne mu ne jaabir ibnu abdullah mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yubaala fi lmaa irraakidi yonente bi alayhi salaatu wasalaam tere na terek xaraamal ñuy saw ci béréb boo xam ne ndox mu taa moo fa nekk su fekkee saw ci boppam dañ koo araamal foofa kon la féete kaw saw taxut ñuy wax juróomeel ba mu ne fil masjidi maanaam xaraamal nañ itam faj aajo ci biir jàkka foofa néegub yàlla xam ngeen ne ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toog na nii saxaaba yi wër ko muy wax ak nit ñi ci seen diine am benn arabi muy li ñu tudde ab kaw-kaw koo xam ne ca kaw ga la jóge dugg ci jàkka ji rek daal di dem taxaw ci benn koñ daal di tàmbale di saw di tuur ndox biñ ko séenee ñi tàmbale di ko yuuxu eh waaja mu ne leen de def leen dànk bàyyi leen ko la tasrimuhu bu leen dagg li muy def bi mu ko bàyyee mu def li muy def ba àggal ba tuur ndoxam ba sottal mu ne dem leen ngeen indi baagub ndox ñi dem root baagub ndox indi mu ne sotti leen ko foofu ñu sotti ko fa muy taxaw di xool biñ defee lool ba àggal doy na sëkk ngir mu xam ne lim doon def baaxut ci la ñëwee nag teg ca lam ca teg mooy wax kàddu yu tàng jëmale ko ci saxaaba yi ñaanal yonent bi yërmaande joo xam ne dafa ñaan yàlla jagleel ko ko mook yonent bi te bañ cee boole keneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag bul xatal lu yaatu nag bul xatal lu yaatu foofu da nga fi jàngee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xikmaam ci njàngaleem jële nañ ci ne jàkka béréb bu laab la boo xam ne lépp lu salte wala su ko faa def bokk na ci tuyaaba yi gën a mag sax nit gis ci jàkka lu salte mu dindi ko moo tax seetal jàkka ci boppam tuyaaba ji ci nekk sun borom tabaraka wa taala rek moo ko xam ànd ak loolu bi waa ji ñëwee tàmbali di def loolu mu doon def su bàyyi woon saxaaba yi ñu yuuxu ko mu déplacé kon ngaanu waayam moom yi au lieu muy nekk benn place day tasaaroo ci biir jàkka ji kenn du xam ku koy ku koy laabal noo koy laabalee parce que tasaaroo na ci biir jàkka ji yépp ñaareel bi suñ ko daggee mu arrêté ko te fekk tàmbali woon na di faj aajoom ba àggal dagg googu ñu koy dagg lu baaxul la ci santeem maanaam mën na koo lor moo tax mu ne bu leen ko dagg ñi bàyyi ko mu faj aajoom ba àggal mu jàngal ko njàngal mu sell moo xam ne bu ëllëgee waa ji duutu def lu mel noonu réerewu leen mbir ne jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yooyu jamono suuf kese la woon maanaam tabaxuñ ko woon laluñu fa woon itam dara moo tax wax dëgg yàlla ka jóge ci àll ba doon gan guy door a dugg ci lislaam te kenn jàngalagu la dara te yow la nga miinoon mooy boo nekkee ci àll ba di sàmm ba mu neex la fu la neex foo jëkk a jot taxaw daal di fay faj sa aajo yaakaar nga ne itam nit ñi fuñ bokk toog itam xàmme woo jàkka ak lu dul jàkka comme que suuf la fële suuf la gisoo luñ fi lal gisoo luy wutaleeg leneen la ca des am nay roqam daal yoo xam ne wutal nañ ko ay xobi tàndarma làkk-làkkal defal nii moom jàpp na ne bu gisee lu mel noonu war na faa mën a faj aajo kon loolu mooy ngànt li nga xam ne ku ko doon seetal saxaabi yu boobu mën ngaa gis ne ñàkku ca am ngànt ngàntul ñàkk a xam moo tax ki xamut ak lim def lu mu rëy rëy des ko war a xamal rek loolu dong mooy saafara si saafara si mooy ñu xamal ko ndax dafa xamut waaye leneen mënu koo mënu koo saafara ñu mel noonu toujours dañ lay wax ne al arabi wala diw wala nangam waaye seeni tur kenn du ko xam loolu bokk na ci sutura si nga xam ne saxaaba yi dañ koo jëfandikoo ci jàngale lislaam mooy léeg-léeg nit day defu njaaxum yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ca am jàngale moo xam ne nit ñi dañ ciy jëriñu ba faaw xam nañ ku mu doon waaye ci riwaayaat yépp duñ la tuddal aw turam ne la diw sàngam la moo tax foo mën a jàng ci téere dañ lay wax rek arabi bi duggoon ci jàkka ja bi mu dikkee def nangam ak nangam ak nangam ab kaw kaw waaye kenn xamut ku mu doon ak nu mu tudd waaye wóor na ne ci saxaaba yi gëmoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ànd ak moom te jamono yooyu day door a dugg ci lislaam ndax ku ci doon door a dugg ci lislaam it noona ngay mel ba ngay door a dugg waaye bu yàggee nag da ngay doon nag keneen juróom-benneel ba alistinjaau bi rawsin aw azmin aw taam maanaam alistinja wala sax alistijmaar la waroon a jëfandikoo foofu ndax dafa am ñaari mbir daa am al istijmaar kooku buñ koy jëfandikoo day fekk ndox amut muy jëfandikoo matière boo xam ne pour nettoyer boppam ba mu set la moo xam daa tuur ndox wala dafa tuur dugub am na jamono yoo xam ne ndox yombul woon bariwul woon kon booba lan lañ daan jëfandikoo ay bant wala ay xeer wala yu nuroog yooyu pour setal béréb ba loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na nuñ koy jëfandikoo mooy bul jëfandikoo lu yées ñetti xeer yoo xam ne benn bu ci ne danga koy jëfandikoo bam mat sëkk nga jël ba ca des jëlaat ba ca des su ko defee béréb ba ngay setal moom dana set loolu mooy ba ndox amul alistinjaau nag ci ndox lañ koy jëfandikoo moom la ñu tuddee siiw siiw ki koy def ndox lay yor di raxas béréb ba loolu mooy bi gën a siiw ci sunu jamono ndax ndox yomb na léegi te it néew na ñuy jëfandikoo ay bant wala yu nuroog moom ah xanaa léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy roy ñu dul ñoom maanaam dañuy roy tuyaab tubaab yi ba àgg ci seeni toilette duñ fa def ndox waaye ay mouchoir lañ fay teg yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo te duñ laal ndox loolu am na ay béréb yoo xam ne ndox yomb na fa waaye teewul ñuy jëfandikoo lu mel noonu waaye jullit ba nag la gën ci moom mooy jëfandikoo ndox ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa tagg ñi nga xam ne dañuy gën a laab jullit bi lu mu gën a laab rek moo ci gën kon ndox la muy setal bokkul ak li nga xam ne aw xeer moo koy setal wala bant moo koy setal wala lu mu doog moom fii nag dañoo araamal nit ki muy jëfandikoo ginnaaw bu mu fajee aajoom ba noppi jëfandikoo ab bant wala aw xeer loola dara newu ci waaye jëfandikoo nag raws te mooy nefare maanaam li nga xam ne mooy génne ci nag wala mu génne ci gëléem maanaam ñoom suñ fajee seen aajo ba mu wow loolu day wow koo nga mel ne bant kooku xaraamal ne nit ki jëfandikoo ko moom di ci fomp di ci nettoyer boppam ngir bëgg a laab ñaareel bi tere nañ ab yax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yax yi mooy ñamu jinne yi ginnaaw loolu mooy seenub dund kon bu leen ko salteel kon sañu te jël ab yax di ci nettoyer boppam wala mu di ci nettoyer doomam wala mu dog aw taamin wala loo xam ne lu nit di lekk la loolu kenn sañu koo jël di ko nettoyer sañ te jël benn doomu banaana wala mu jël benn ñambi wala yu mel noonu nga xam ne ñamu doomu aadama la di ko nettoyer boppam gannaaw boo xamee ne faj na aajo ba noppi kon daal lépp loo xam ne dafa nuroog ñett yooyu ci ñu xaraamal la bokk juróom benn yooyu la tudd bi ko juróom ñaareel mooy faj aajo ci am pax fi juxrin ñëw ci menn pax pax xam nga ne li koy gas mooy mala yi nekk ci àll bi mën na nekk kaña mën na nekk siiru mën na nekk mbët mën na nekk wel xeeti mboolem yi nga xam ne ay jaarak yooyu nga xam ne pour ñu dëkk dañuy gas ba ca biir ñu dëkk ca biir kooku kon xaraamal nañ nit ki mu ñëw fekk am pax moo xam ne paxum dara la mu ñëw di faj aajo ca biir moo xam da cay tuur ndox moo xam da cay tuur dugub kooku xaraamal nañ ñëw na ci xadisu Abdullah ibn Sirjis boo xam ne xadis bu wér la Cheikh Muqbil al-Wadi'i wéral na ko mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na nit ki di faj aajo ci am pax kon juróom benn yooyu yépp wala juróom ñaar yooyu yépp dañoo xaraam kii faj aajoom mu jëfandikoo ko tënku ñaareel bi ci suñ bindu tey bi mooy maa yukrahu li nga xam ne dañ koo sib àggul ci xaraam waaye luñ war a bàyyi la luñ war a bàyyi la ndax bàyyi gi am na tuyaaba wahiya arbaatun yooyu ñeent la am na ñeent yoo xam ne yépp kuy faj aajo na ko wattandiku donte nag àggul ci xaraam waaye na ko wattandiku bi ci jëkk mooy alkalaamu fi asnaai qadaiha alkalaamu di wax fi asnaai qadaiha ci jamono yi muy faj aajoom ma nga ca biir wana wa daal toog di faj aajoom fa mu nekk nit nekk ca bitti muy wax ak moom wala mu yorub téléphone am nit ña di wax muy wax di tontu loolu ci boppam sib nañ ko ki nekk ci biir wa nag daa war a téye làmmiñam ba ba muy génn ñu ne li tax fit faj googu li tax mu feddliku mooy jullit bi néew na mu wax wax ju yàgg te tudd yàlla nekku ca mën ngaa wax ba daaneel ba ngay wax insha allah wala yu mel noonu doo ko tey sax wala subhanallah jékki-jékki nit mën naa wax loolu yaa ngi ca téléphone ba yaa ngi ci biir duus bi di faj aajo di waxante mën ngaa jékki ba mu yàgg nga tudd yàlla te doo ko tey kon loolu moo tax jullit bi ñu tere ko ko parce que zaria la loo xam ne mën na koo xëcc ba yóbbe ko ci mu tudd yàlla ci béréb boo xam ne wari sifaa tudd yàlla ñaareel bi al bawlu fi mahabbi riixi moo di di saw ci béréb boo xam ne dafa ànd ak ngelaw lu bari ngelaw lu bari lu tax mooy ngelaw li bu ñëwee mën naa wëlbati ndox mi mu wëlbati ko ci kaw tànki nit ki wala ci kaw yéereem tuur ko ci kawam su ko defee mu daal di sobewu ñu ne kon sib nañ foo xam ne ngelaw la daf faa bari mu ñëw taxaw fa noonu wala mu toog di fa di fa tuur ndox ndax mën naa tax mu taq ca te dañoo bañ mu taq ci su ca taqee sobe da koy taq mu dugal boppam ci ñaari problème muy ñaari sobe day daal di ñëw ci moom daje ci moom muy tahaaratul xadas ak tahaaratul maanaam al xadas wal xabas ñaar yooyu dañuy daje ci kawam mooy war naa dem jàppi waaye war naa demit dindi ji sobe si taq ci yaramam mu doon ñaari coono yu daje ci moom benn yoon te loolu mënoon na ko fegal boppam mooy buy tuur ndox mu dem ci béréb boo xam ne fu làqu la foo xam ne ngelaw luy jëri loolu nekku fa ñetteel bi mooy bi ma doon junj léegi istisxaabu ma fihi zikrullah istisxaab mooy ànd ak maa loo xam ne fiihi nekk na ca moom dikrullahi tudd yàlla mu ànd ak yóbbaale ca biir lenn loo xam ne tur yàlla daf caa nekk kooku dañ koy tere satala gam yor di ko yóbbaale ca wana wa bu fekkoon ne tur yàlla da caa nekk sañu ko dugal ci wanak jaaro bi mu takk bu fekkoon ne tur yàlla da caa nekk sañu ko yóbbaale ci biir su fekkoon ne daa sol mbubb wala dara wala yu mel noonu tur yàlla nekk ca sañu ko dugal ci biir ci biir wanam kon lépp loo xam ne tur yàlla maga ca kenn sañu ko dugal ci biir ab duus kon loolu ñu xam ne kooku dañ koo sib donte da ko boole ci yi nga xam ne yu ñu sib la waaye li lenn ci borom xam-xam yi nee nañ bu ko tayee kooku day xaraam su fekkee ne moo ko tey mu wóor ko ne lii tur yàlla la mu wóor ko ne lii itam ab duus la mu tey ko dugal ko ci biir bu boobaa day xaraam ci moom kon kooku ci yi gën a mënta wattandiku ci la bokk ñeenteel ba alistinjaau bil yamin alistinjaau mooy muy raxasu bil yamini ci loxob ndey jooram bi muy setal boppam bi mu fajee aajo ba noppi baaxul ñaaw na sib nañu muy jëfandikoo loxo ndey jooram ngir di setal boppam kon loxob càmmooñ la ñuy jëfandikoo ci lu mel noonu ndax noonu la sharia diglee ne loxob ndeyjoor nañ ko jagleel yi gën a sell te gën a laab loxob càmmooñ ñu jagleel ko yi nga xam ne yooyu mooy safaanam kon sañu ta ñëw ba ca wana wa faj aajoom ba noppi di raxasu di siiw mu jël loxo ndeyjooram di ko raxase boppam kooku ci ci ci la bokk aldaabitu thaalis tënku ñetteel ba nag maa yustaxabu mooy yi nga xam ne dañ koo sopp nga xam ne su ko defee am na ci tuyaaba wa hiya thalaathatun mu ne ñett la bi ci jëkk albasmalatu wal isticaadatu qabla adduxul albasmalatu mooy wax bismillahi arrahmani irrahim wal istiaadatu mooy muslu ci seytaane yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na jàngal nañu ni ñuy musloo ci seytaane ci kuy faj aajo ay wax allahumma inni audu bika min alxubusi walxabais yow sama boroom maa ngi muslu ci yow min al xubusi ci shaytaane yu góor yi wal xabaisi ak shaytaane yu jigéen yi al xabais ba jabu xabisa ñaan googu su ko waxee sax na ne shaytaane yi duutuñu ko mën a gis duñ gis ay awraam dañ dañ koy da leen di nëbbu duutuñu ko mën a teg bët ànd ak ne dañu ko doon gis ñu wax ne feebar yu bari mën naa gaar doom aadama ji fekk day faj aajo te musluwut ci seytaane ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee seytaane yi ñëw ëf ko ngelaw mu dugg ci biir aw yaramam daal di nekk feebar su waxee nag ne allahumma inni audu bika min al xubusi wal xabaais yàlla da koy musal ci seytaane yooyu nañ ko doon gise bi mu waxagut loolu su xasee wax loolu daf leen di réer duutuñu xamati waajo fu mu toll kon loolu lu mat a bàyyi xel la qabla duxul su fekkee ne fi muy fajoo faje aajoom la dafa nekk lu mel ne li am tey nga xam ne ay duus la yoo xam ne ab néeg la avant muy dugg ca duus ba avant muy dugg ca duus ba ca bitti fa lay waxe loolu muy wax fa lay waxe bismillah fa lay waxe allahuma inni audu bika min alxubusi walxabais su waxee loolu ba àggal door a dugg kon loolu mooy ñaanuk dugg ci ab duus ci kaw koo xam ne ci duus lay dugg bu fekkee ku ne ci àll bi la nag kañ la koy wax kuy faj aaju ci àll bi dañu wax ne balaa wuññi awraam di faj aajoom na ko wax ba àggal door a dindi awraam ndax léeg-léeg mën naa dem ba ci àll ba mu yàgg aajo dab ko fekk fa mu nekk foofa ab duus nekku fa mu wàcc otoom wala mu wàcc la mu duggoon dem ca àll ba di faj aajo moo xam day tuur ndox wala day tuur leneen su boobaa balaa wuññi awraam muy feeñ na wax ne bismillah allahumma inni audu bika min alxubusi walxabais door a def la muy def ñaareel ba taqdimu rijli lyusra fi lduxul walyumna fi lxuruj taqdimu rijli lyusra mooy jiital tànkub càmmooñ fi lduxuli ci buy dugg duus bu mu mën a doon ak nu duus ba mën a bindoo su nit kay dugg na jiital tànku càmmooñam moom lay dugge buy génn na jiital tànku ndeyjooram noonu lañ ko bëggee mooy li nga xam ne soo ko defee am ci tuyaaba te mooy dëppoo ak teggiin yi kon ba tey it noo ngi dellu si rek ci ne ndeyjoor dañ koo jagleel yu selli càmmooñ ñu jagleel ko safaan bi ndax jamono yi ngay dugg ci duus bi la chaque ne fii ngay génne moo gën a sell fii ngay dugg kon su booba ginnaaw fi ngay dugg moom sellut jiitalal tànku càmmoñ bi boo fay génne nag fi nga jëm mooy fu sell fi su boobaa jiitalal tànku ndeyjoor bi su ko defee loolu dafay dëppoog qiyaas bi nga xam ne moom la sharia teg ci ndeyjoor ak càmmoñ kon sooy dugg jiitalal sa tànku càmmoñ booy génn jiitalal sa tànku ndeyjoor léeg-léeg nit ki mën naa poser question xam nga duus yi niñ bindoo léeg-léeg toilette bi mën naa nekk nii lavabo bi ngay jàppe it nekk nii ñu ne nit ki bi muy dugg wax na ñaan gi ñuy wax booy dugg ci duus faj na aajoom ba noppi bëgg naa jàpp te kuy jàpp faaw mu ne bismillah te mi ngi ci biir duus bi nu muy def su boobaa bismillahi jëm waxoon ba muy dugg jooja doy na ci waxi lenn ci boroom xam-xam yi ginnaaw nee na woon bismillahi ba muy faj aajoom lépp lu mu fa def rek turu yàlla woowu yóbbaale na ko am ñu ne day wax ci am xelam bismillah te bañ ko wax ci làmmiñam maanaam bàyyi ko xel daal am na ñu wax wax ju reelu ñu ne su fekkee fenêtre dafa am day ubbi fenêtre bi génne boppam daal di ne bismillah ba noppi daal di ubaat fenêtre bi commencé di jàpp waaye loola nag du ko jar kon li gën a wér mooy ba muy dugg wax bismillah ja rek loolu doy na sëkk kon loola doy na sëkk mu ne bismillah ñetteel ba mooy qawlu gufraanak ba'da al xuruj mooy su génnee faj na aajoom ba def li muy def yépp ba génn duus ba ba jiital tànku ndeyjooram ba mu wóor ko ne mi ngi ci bitti na wax ne xufraanak bu mu ca teg leneen nag am na xadis yu ñëw yoo xam ne dafa am yeneen yuñ ca teg waaye nag guddul benn baat rek la xufraanak mooy yow sama borom maa ngi lay ñaan sa njéggal sama borom maa ngi lay ñaan sa njéggal kooku moom lañ jàngale foofu kon lii mooy teggiin yi nga xam ne moo jëm ci teggiini faj aajo ci bépp jullit boo xam ne si dafay faj aajoom kon jiim ci tënku jiim a sàmmonteeg moom lu ama am solo la ci dunduk jullit bi ndax dafa doon loo xam ne jullit bi mënta tàggoog moom ndax loo xam ne kat mënoo xëy ba jant soto fajoo aajo moo xam tuur ndox la wala leneen mënta ñàkk ci bis bi saa boo amoon ñaari fan yu tegaloo yoo xam ne fajoo aajo dañ lay yóbbu hôpital kon kooka dafa takkoo ak jullit bi mënta ñàkk kon lépp lu ca lislaam jàngale jaadu na jullit bi man koo xam di ko appliquer itam kon defe naa ne mën nañoo taxawlu foofu li des ci waxtu wi war naa toll ci ay ñaar fukki minute wala lu ko jege ñu jëmale ko incha allahu ci question yi ndongo yi jàngale am na ci ñoo xam ne moom dañuy sori lool fa ñuy nekk xaw ma ndax ñu ngi déggam déet liñ baaxoo woon mooy xalqa ñëpp dañuy bokk toog waaye fedd géewu ca gannaaw day tax nga mel ne ku beru te loolu doonul lu gën su amee question yu direct ñu joxe microphone bi incha allah doole jublu ci yiñ bind bismillah
salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaanal yàlla subhaanahu wa taala docteur yàlla na ko yàlla sàmm yokk xam-xamam barkeel ko te jëriñu ci bu baax a baax dafa am benn question bu ma doon bu ma doon leerlu ndaxte si si wàllu jihaad nit ki buy jihaad ak beneen groupe wala ay jullit yu jihaad ak ay yéefar su jullit ñi demee ba jàpp yéefar yi est-ce que foofu l'islam mayaat na leen ñu yéefar yi am droit tuub wala déet.
waxaatal su ay jullit bu ñuy jihaat ak ñeneen ñu dem ba ba dominer leen ba jàpp leen wàccal kii bi tuuti waaw ba téye leen est-ce que instant boobu ñu leen téyewee am na mën na leen may possibilité ñu tuubaat ndax man mën nañ leen a may possibilité am na ruxsa bu leen mën a may pour ñoom ñu tuubaat ñu tuub dugg ci lislaam microphone bi mooy xaw a riir de pour man waaw dama ni xaw a wàcc tuuti waaw ay jullit bu ñuy jihaat premièrement ñu jihaat ak ay yéefar ba jàpp ba ba dem ba jàpp leen est-ce que instant bi ñu leen jàppee dinañ leen mën a may l'islam may na leen ñu gaar leen l'islam pour ñu tuub wala ñu leen rey bu fekkee yéefar la quoi yéefar la bu bu leer.
ay prisonniers daal.
ay prisonniers waaw léegi bu fekkee ku ku ñu jàppee ku murtad la. ku ñu jàppee ku murtad est-ce que tamit bu ñu jixaateeg moom ba jàpp ko instant boobu ñu ko jàppee mën nañ ko gaaral pour mu am possibilité.
xam nga lépp loo xam ne dafa aju ci masaa'il jihaad. dafa dugg ci biir cadre siyaasa charia maanaam ki nga xam ne moo jiite jullit ya nekk seen imaam ci jamono yooyu wala mu nekk seen imaam ci béréb boobee moom la ñuy déglu ca mbir ma ba xam lan lay wax su boobaa moom it day xool lan moo gën a dëppoo ak maslaxa su fekkee gis na ni ñii gaaral leen lislaam moo gën ci ñoom suñ duggee ci lislaam ñu bàyyi leen su boobaa mën naa def lool su gisee ni ñii mën nañ leen a bàyyi suñ mënee joxe dara ñu libéré leen ñu joxe dara ndax fekk na askan wi aajo woon ku ñu def loolu waaye lu mu ci mën a doon daal ca seen njiit ca lañ mën a dellu muy imaam su ko defee moom itam dafay diisoo ak ñim àndal ca loola ba xam lan mooy li ca gën yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ne ci asra badr muy ñi jàppoon ci badr ku mel ne omar ibn alxataab radiallahu taala anhu dafa gisoon ne nañ leen rey abu bakar ak ñeneen ne déedéet buñ leen rey suñ nangoo jotu nañ leen bàyyi ñu jotu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci njëlbeen dafa àndoon ak xalaatu rey leen waaye alxuraan wàcc ne déedéet buñ leen rey nañ leen bàyyi ñi jotu ñu bàyyi leen ñu jotu ña ca am luñ joxe joxe ñu bàyyi leen ña ko ci amut te doon ñu mën a bind mën a jàngale ñu ne leen jàngal leen nangam ci aw nit ba ñu mën a jàng ñu libéré leen ñu dem kon daal foofu doon na mbir moo xam ne ab fatwa bu ñuy génne boo xam ne dañu wax ne nii la foofu amut foofu siyaasa charia la boo xam ne dañ koy delloo ci imaam mu xool lan moo gën a dëppoo njariñu lislaam ak jullit yi mu appliqué loola wallahu taala alam kii nee na ndax wér na ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere ñu taxaw di naan okay wér na ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere na ñu taxaw di naan waaye loolu yi bi mu amee ba noppi dañoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ak aj mu ñëw ci sam-sam ñu gis ko mu tànk ndox taxaw di naan loolu nag su amee faaw boroom xam-xam yi danañ am nuñ ko firee li ëpp ci ñoom nee nañ day wone ne la mu tere woon nekkul terek xaraamal waaye terek sib la maanaam dañ koo sib gënul waaye dagan na moo tax mu jëfandikoo ko pour won leen ne lii kat lu dagan la doonte bañ koo def moo gën kon ñooñu dañ ne daf koo def li bayaanil jawaaz pour wóor ne lim tere woon kat lu dagan la waaye nag ku ko mën a bañ a def it moo gën am ñoo xam ne dañ ne carrément jëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay nasaxal waxam ñu ne lam waxoon ne bu leen di naan di taxaw ba mu yàgg ñu gis ko mu naan taxaw kooku day wone ne lam tere woon dañ ko abrégé maanaam atte boobu dañ ko folli indi beneen atte bu bokkul ak boobu loolu lenn ci boroomi xam-xam wax nañ ko am ñoo xam ne dañ ne déedéet bépp texte boo xam ne nit ki mën na koo boole jëfandikoo ñaar yépp su boobaa mooy gën nga naan bii moo gën a dëgër rek bii dañ koy folle yu mel noonu nu ñuy def kon ñu ne bu fekkee meneenum ndox la mu dul sam-sam kon tere ga ca la jëm bu dee sam-sam nag ku koy naan sañ ngaa taxaw ñu ne ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la def loolu moom itam ci benn génnukaay la ala kulli xaal masala la boo xam ne wóor na cëng ne moom tere gi du tereg xaraamal moom moom wóor na cëng ne tere gi du tereg xaraamal ndax su fekkoon ne dafa nekk lu xaraam ba noppi nekk mutlaqan kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam du araamal dara ba noppi wëlbatiku moom di ko def te kenn mënta wax ne def gi daa nekk xaas ci moom ndax xusuusiye day aajowoo ab texte buy wax ne kii yonent bi dong moo ko sañ waaye gis mu def ko rek taxul ñu ne moom dong moo ko sañ te texte bu mel noonu amut buy wone ne moom sañ naa naan taxaw te keneen ku dul moom sañu ko moo tax daal yow mi naan ndox su fekkee am nga moyen mën a toog naan loolu moo gën ci yow su fekkee nag da ngaa yàkkamti wala amoo foo toog wala amaloo kii nga naan taxaw itam kenn du la ŋàññi ci loolu ki naan toog nag lam def moo gën ndax moo gën a dal xel te it moo lay génne ci jooyo yooyu yi ñuy wax yépp su fekkee ne nag da ngaa naan taxaw itam kenn du la ci ŋàññi kenn du la ci xas wallahu taala alam kii dafay laaj lan mooy dalil ci ne istinja te mooy jëfandikoo ndox moo gën a laab jëfandikoo leneen lu dul ndox loolu moom defe naa ne aajo woowul dalil boo xam ne sharia mooy ñëw di ko wax ndax fi mu nekk ku la doon wax ne ndax am nga benn dalil boo xam ne alxuraan daa ñëw bu lay wax ne ci waxtu sàngam lan nekk fi mu ne nii dalil bu mel noonu kenn amu ko waaye ku nekk xam na ne waxtu sàngam ci lan nekk maanaam heure bii nu nekk aaji woowul ngay séentu alxuraan muy ñëw ne la six heures nangam jot na wala léegi sept heures jot wala yu mel noonu ku xool sa montar xam ko kii jëfandikoo ki faj aajoom ba àggal yor ay bant di ko jëfandikoo wala ay xeer wala ay jëfandikaay ak lum seetal seetal mën naa seetal ba jëmm ja jóge na fa waaye nag pour mu seetal ba xet ga jóge fa loolu yombut bu dee ndox nag jëmm ja daf fay jóge xet ga jóge fa te setal bi yóbbu xet yóbbu jëm boobu la chaque ne moo gën a laab bi nga xam ne day yóbbu jëm bàyyi fa xet kon kooku aajo woowul texte sharia ñëw dinu ko wax soo amee beneen bu bismillah
salaamaaleykum wa rahmatullah man ñaari laaj laa amoon bu ci jiitu moo doon mooy sib bi nga xam dañ ko sib nit ki dugg ak dugg ci toilette ànd ak sib bi nga xam dañ ko sib nit ki dugg ci toilette ànd ak yére boo xamante ne wala dafa am zikru la dañ ci bind yàlla tur yàlla ma ne sib bi nga xam dañ ko sib nit ki dugg ci biir toilette ànd ak yére boo xamante ni sib
sib waaw ànd ak yére boo xam dafa am dañ ci bind turu yàlla. mba xam léegi transcription mooy comme ni nga xam ne bokkul ak yax bi transcription allah ñu dafa ko transcription bind ko ci bindu tubaab. ndax loolu daf siy dugg
ndax mu ne ndax
làkk tubaab bépp bépp tur yàlla bu mu mën a doon façon bindiin buñ ko mën a bind ak làkk bu mu mën a nekk kenn sañu ko dugal ci biir wanag dañ koy tere du caagi ni mu nekk ci kàllaam ak arab rek lañ tere waaye mu nekk ci kàllaam ak arab wala ñu bind ko ci beneen làkk bu mu mën a doon benn la ndax tur yàlla moom tur yàlla rek la
ñaareel laaj moo doon nit ki nga xam mooy nit ki nga xam dafa dugg pour nettoyer toilette bi pour nettoyer toilette bi ndax kooku dina aaju mu wax ñaani dugg douche bi ak bu génnee tamit mu wax au franc nag ci nettoyer
pour nettoyer.
waaw wa ñaan gi ñaanuk faj aajo la ñaanuk faj aajo waaye du ñaanuk dugg ci duus ki nga xam ne daf fay dugg ngir faji fa aajo nar fa summi aw yaramam kooku mooy wax ne allahumma inni a'udhu bika min alxubusi wal xabaisi waaye ki nga xam ne dafa dugg rek di nettoyer wala itte dugal ko fa kooku day dugg rek def la muy def génn waaye nag jaadu na jaadu na buy dugg na jiital tànku càmmoñam buy génn na jiital tànku ndeyjooram atte boobu moom dafay des kii nee na ki nga xam ne daa dégg kuy nodd su waxee ne asalaatu xayrun min annawm yow mi koy déglu lan ngay wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa jàngale ne ida sami'tum almuaddina fa qulu mithla ma yaqul su ngeen déggee kay nodd wax leen lu mel ne la muy wax ba noppi xadis boobu mu ñëw ci anam goo xam ne dañ koo leeral lool détaillé ko ne su waxee nangam neel nangam su waxee nangam neel nangam su ne xayya ala salaa neel laa xawla wala quwata illa billah bu ne xayya ala alfalaax neel laa xawla wala quwata illa billah kon yi nga xam ne am na leneen lu ñuy wax lu bokkut ak la kay nodd di wax yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu ko mooy xayya ala salaa ak xayya ala alfalaax yooyu jàngal nanu lan ngay wax ndax li ngay wax foofu daa bokkut ak la kay nodd di wax su ne xayya ala salaa looy wax laa xawla wala quwata illa billah su ne xëy alal falaax looy wax laa xawla wala quwata illa billah loolu ku nu ko jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su nu ko jàngalul woon lan la nuy wax kon lu mel ne kay nodd la muy wax rek parce que nee na woon bu ngeen déggee kay nodd muy wax wax leen lu mel ne la muy wax ginnaaw nag asalaatu xayrun min annawm jàngaluñu leneen lu bokkul ak la kay nodd di wax dañuy def nan defoon rek ci allahu akbar ak ashadu an laa ilaha illallah ak ashadu anna muhammadan rasulullah mooy wax lu mel ne la muy wax kon daal ci gàttal bu ne asalaatu xayrun min annawm neel asalaatu xayrun min annawm wallahu taala alam mu teg ci beneen laaj mu ne ban téere la ñuy laa biire ndongaluy door a tàmbali jàng mu tàmbalee ci ca tawxid na tàmbalee ca téere ya gën a yomb rek ci moom su delloo ci ka koy jàngal tam doon ab jàngalekat mu xool niw bi mu toll moom dana ko mën a tàllal téere ba dëppoog moom waaye amul téere boo xam ne dañ naan na tàmbalee ci bii wala na tàmbalee ci bee am na yoo xam ne ak ki jàngalekat bi la ginnaaw ab jàngalekat la ndongali ñëw na di jàng si ne ko man kat dama bëgg a jàng tawxiid na ko xool ba xam moom ci ban niveau la nekk agug déggam fu mu toll su fekkee xam na ko mu ne ko nan tàmbalee ci téere sàngam su jeexee nu teg ci téere sàngam su jeexee nu teg ci téere sàngam wallahu taala alam doxal jàll
laaj bi ma am mooy que ne nit bu amee doom fale ci France wala bitim réew daal léegi ay mbokkam jënd gàtt fi tuddee doom ji fii maanaam reyal ko gàtt ki fii wutal ko tur est-ce que loolu dana wér te moom nekku fi ak bébé bi tam nekku fi mu ngi fale bitim réew salaamaaleykum.
xale bi juddoo feneen nekk foofa ndax mën nañ koo ngénte feneen fu bokkul ak foofa ok mën naa nekk li am solo mooy gàtt ba ñuy rey nañ ko yéene ci ne moom ak tuddam la te suñ boobaa bisu juróom-ñaareel ba ñu rey ko ci bisu juróom-ñaareelam te wat ko nag fa mu nekk muy góor muy jigéen ñu wat ko fa mu nekk su ko defee loola mooy ngénteem ndax dagan na ñuy jënd ab xaj ngir muy garde ok loolu dagan na xoolal wet gi tuuti ba xam waxal noonu rek ndek waaw aha
sàmm la yàlla guddal fan wi yàlla barkeel xam-xam bi dama am ñaari laaj benn laaj bi mooy euh, koo xam ne dafa nekk ci duus te nekkut ne faj aajo moo ko fa yóbbu day raxas wala dafa nekk di def leneen nit romb ko ne ko asalaamaaleykum ndax dana jaadu mu fay ko ca biir duus ba wala day génn doo ko fay wala day bàyyi ba génn beneen laaj bi ci topp mooy jigéen yéreem yi nga xam ne may nañ ko ko mu gudd bay laal suuf dama am suñu benn imam bu ma doon waxtaanal na ko islam day borom xam-xam yi dégg naa ci ñuy ci borom xam-xam yi ñuy wax ne looluy watatu ci suuf bu rombee sobee laal ko watatuwaat ci suuf so laabal na ko mu ne ma ci kaw bu amul ndox waaye bu amee ndox moom bu ko jullee du mën am julli mukk ñu bëggoon ci nag ay dalil yu gën a leer yoo xam ne buñ demee man ko koo gën a jottali ba mu xam ne loolu islam moo ko may.
alhamdulilah ki nga xam ne daa nekk ci biir duus nit jaar fa ne asalaamaaleykum kooku du ko mën a fay fekk mi ngi ci biir duus bi ndax buñ fàtte ne asalaam ci turi sunu borom tabaraka wa taala la bokk maanaam ma ne su te nekk ci biir duus ba di tudd turu sunu borom tabaraka wa taala kon salaam munta am fekk ma nga nekk ci biir ci biir duus ba dana firi jàmm waaye dana firi itam turu sunu borom asalaamul muminul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir kon salaam ci turi sunu borom tabaraka wa taala la bokk kenn du ko tudd ci biir ab duus waaye nag ndax mën na faa wax jeneen wax dañ naan waxu kay mën na faa wax jeneen wax waaye nag na wattandiku lañ doon wattandiku ci koy faj aajo na wattandiku loolu dal ko mooy turu yàlla tàbbi ci biir ay waxam te néew na ni ma ko waxee woon léegi ab jullit mën a waxtaan waxtaan wu gudd a gudd ba daaneel te turu yàlla du ñëw ci làmmiñam loolu mooy tax ñi koy sib ci moom amma malaan mi nga xam ne jullit bu jigéen bi da koy yor yéeréem xëy na gudd ba ëpp wala muy watu wala yu mel noonu li wér mooy su fekkee ne laal na sobe nga xam ne sobe la sobe la laal ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale dafa ni yutahiruhu ma ba'dahu maanaam saa boo xamee ne laal na ci dara bu jógee laalaat suuf ak yu mel noonu suuf soose muy watuwaat ban na koo seetalaat ba mu laab laab googu laabug man caa julli lay doon waaye nag ñu xam ne du caagi ni lépp loo xam ne lu ñu jàngale mu tëdde noonu la maanaam nga xam ne ci buntub dagan lay jëm day fekk ne la dagan mooy la gën maanaam loolu mu wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci kaadaru li ñuy tudde aljawaaz la maanaam dagan na mu def lu mel noonu mu rombaat yeneen yooya setal ko mu yam ca loola waaye nag ñu xam ne dara dana dagan ba noppi am leneen lu ko gën su boobaa la koy gën mooy lan mooy fóot ko ba mu set wecc ginnaaw sobe ñëw na fa suuf mën naa fexe ba dindi ko ba sobe jëmm ja nekkatu fa waaye li ma doon wax léegi muy xet ga continuer nekk fa rawatina su fekkee yenn sobe yu salte yi la dëgg dëgg dëgg su boobaa loolu fóot ko rek mooy tax muy dañ moo tax léeg-léeg itam bàyyi nag genn watu gu ëpp gi itam doonut nag loo xam ne luñ taamu la ci mbir yu mel noonu ndax bul fàtte ne loolu lu dagan la jullit bi def ko waaye duñ wax ne dafa nekk waajib ne faw jigéen ji buy dox day am lu topp ci moom di watu lu dagan la ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ummu salama ca xadisam ba daf koo ñaanoon bi nga xamee ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne solum colum ab jullit ci nisfu saax lay yem ci nisfu saax ci lay yem maanaam ci digg yeel bi ci lay yem atte boobu su yemoon foofu góor ñeeg jigéen ñi mën nañ koo bokk waaye soxna sa daf koo laaj mu ne ko ah nun jigéen ñi day loolu suñ ko defee sunuy tànk day sunuy ndëggu dana feeñ de mu ne ko kon dolli leen ci ab chibre chibre mooy lii mooy nga tàllal sa loxo nii diggante catul baaraamu dëy bi te mooy baaraam bu gàtt bi ak catul baaraamu digg ba mujj fële ni muy toll loolu la ñu tudde chibre mu ne ko kon ngeen dolli ko ci xam nga nisfu saaq boo ci dolli ab chibre du tax tànk yi yépp muuru am na luy feeñ mu ñaanaat ko leneen mu ne ko kon def leen ko zira waaye bu leen ca dolli dara nag moo tax ci riwaayu Abu Dawud daf ne fa raxasa lahunna an yazidnahu ziraan maanaam mu may leen ñu dolli ko ba mat siraa kon dañu xam ne ruxsa la ne jigéen ji may nañ ko mu sol dara ba muy buubu may nañ ko ko sañ na ko kenn sañu ko koo tere yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko may waaye bokkul ak nag nga ne sañu koo aj ba nga xam ne nekkatul di watu ci suuf kon su fekkee watu ci suuf ak indi jafe-jafe yu mel noonu nar naa am na ko yamale ci mu muur ay tànkam yam ca te bañ a watu ci suuf bu fekkee awra lay lay nëbb ci kaw ñi nga xam ne dañoo jàpp ne tànk awra la bu solee ay kawasam kañ sol yéereem joo xam ne ñëw na ba àgg ci suuf te nekkul di watu ci suuf loola doy na sëkk moo gën muy watu ci sobe su ko defee lañuy jële foofu mooy dara dana dagan ba noppi am lu ko gën dara dana dagan ba noppi am leneen lu ko gën la cay misaal ma koy gën a fàttali rek danaa ko faral di wax mbokk yi mooy jullit bi takk ab nasaraan bu jigéen loolu dafa dagan wala déet di alxuraan moo ko daganal waaw ndax moo gën gënu jigéeni jullit yi bu ñu fi nekkee soxla ay borom kër yu yu yu yu góor yu baax ay jullit ñi nekk fi di xaar ñu mel noonu góor ñi bàyyi leen fa dem takki ay nasaraan loolu lu dagan la kenn sañu ko xaramal alxuraan ko daganal waaye nag gënut moo tax Omar ibn Xattaab ci ak xilaafam da ko tere woon siyaasa sharciya la jëfandikoo tere jullit yi ñuy dem di takki ay nasaraan ñi jigéen ci ak xilaafam ab diir ci xilaafaam bokk wallahu taala alam benn boobu la woon defe naa
laaj waa ngi demal
soxna jazakumullah xëy yan yàlla fay leen yiw te barkeel seeni xam-xam dama fi amoon ñaari laaj bi ci njëkk mooy ñu doon wax ci kiy faj aajo ci jublu ci penk bi wala mu koy wan gannaaw nga xamal ñu tamit ni bu fekkente ne dafa nekk ci lu tëju comme ay wanag ak yu nu mel loolu dinañ ko may mu féete ci am googu ñu sukkandiku ci xadiis Abdullah ibn Omar léegi dama doon laaj foofu ci xadiisu abi ayub al ansaari moom ba muy wax nii biñ demee Saam bañ demee Sham ñoom dañ doon ci rek loolu la ci xaw léegi ñaari xadiis yooyu naka lañ koy boole te ñoom ci dus tamit lañ nekkoon ñu ngi koy bàyyi xel laaj bu am solo la laaj abu ayub al ansaari ci xadiisam bi mu nettalee xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne bu leen di jublu xibla bu leen koy won gannaaw su ngeen di faj aajo nee na danoo dem saam fekk ñi tabax ay duus ci biir kër yi waaye bin dikkee nu gis duus yooyu jublu xibla mu ne fa kunna nan xarifu mu ne sun masaan toog ci duus yooyu dañuy dañuy fexe ba mooy xibla après nu jégglu yàlla nag sun defee loolu ba àggal jégglu yàlla boroom xam-xam li ñu wax ci loolu mooy xadiisu abdullah ibn omar ibn alxataab ñoom gisuñu ko woon maanaam xamuñu woon ne ndekete boo nekkee ci biirub duus su boobaa dagan na nga jublu fu la neex xamuñu woon loolu moo tax ñu doon def lu mel noonu wallahu taala alamu bisawaab ñu koy tëjee mooy tamit ci teer gi la ba léegi fi mu waxee ci yiñ sib ya mooy nit ki muy setlu ak loxo ndeyjooram muy muy setlu maanaam muy defaru daal ak loxo ndey jooram loolu da ko boole si ñu sib ya te dañuy gis ni ma am na xadis yoo xamante ne ni saxaaba yi dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana leen tere bu ñuy faj aajo ñu jublu ci penk wala ginnaaw ak ni ki noonu tamit ñuy setloo seen loxo ndey joor ñuy setloo seen loxo ndey joor ñuy defaroo seen loxo ndey joor te foofu mu boole foofu yu xaram te bi bokkaa ci xadis bi yéen ñu boole sax ñu boole ko si si la chaque année lépp loo xam ne luñ sib la xamal ne luñ tere la lépp luñ sib xamal ne tere da caa ñëw moo tax ñu sib ko waaye nag tere yi dañoo bokkul ay daraja dañuy tere dara ñu am dara ba noppi ñu gis dalil buy wane ne loolu tereg sibeel la am loo xam ne dañ koo tere te kenn gisul luy wane ne tereg sibeel la mu des nekk ci ak xaraamam kon li boroom xam-xam yi wax foofu ci tayaamun ci mboolem yi nga xam ne yi ñu jëfandikoo la ak jagleel ndeyjoor bi lii jagleel càmmoñ bale dañuy gis ni loolu lépp ci baabul karaaxa ci la dugg moo tax ñu dugal ko foofu loolu moo tax dugg ci duus bi jiital sa càmmoñ ak génn jiital sa ndeyjoor kooku ñu boole ko ci nga xam ne yuñ sopp la parce que mooy muqaabilu moo jàkkaarloog li nga xam ne luñ sible su dul woon loolu waajib lay doon parce que dañ koo digle allahu a'lam barakallahu fi
defe naa laajoon nga de waaw dafa dafa am lu mu doon laajte xam naa li mu doon laajte bokkul sax tem bokkul la sax darsu bu ñuy def bi tey moom mooy dafa am benn question bu ma lënt mu ni dama dégg ci boroom xam-xam yi ñu ni ñu ni yàlla moom moo ni ku dugg ci ku ku xas ba dugg aljana dootoo génn après ma dégg ñu ni yonent yàlla Adama daf yàlla daf ko wàcc daf daf génne aljana léegi nag question boobu jaaxal ma lool.
li mu wax de ku ko dégg xanaa nga jottali ko. ku dugg àjjana duutoo génn te sunu maam Adama dugg na àjjana ba noppi génn loolu ku ko wax ku ne ku dugg àjjana duutoo génn.
nam ko dégg ci borom xam-xam yi rek ñu ñu wax.
ah yow kay kon borom xam-xam yi loolu ñu wax yow gis nga safaan bi su fekkoon ne daa am ñaari texte maanaam yonent bi da koo wax wala alxuraan wax ko ba noppi nga gis lu juuyoog loolu kon mën nañoo jàpp ne ñaari texte yu juuyoo moo nekk foofu te même su fekkoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax su doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne ku dugg àjjana duutoo génn loolu bi mu koy wax fekk na sunu maam Adama moom duggoon na ba génn kon kay ñeneen a tax mi wax waaye moom taxul ñëw ah mu ne waaw loolu ci ñan lay wax mooy ajjane ji nga xam ne moom lañ bëgg a dugg noonu ñëpp nga xam ne ku dund fii di jaamu yàlla ba dugg fa te sax ay boobu nga wax ajjana xoolaat ku dund ba dugg fa foofu moom duutoo fa génn loolu mooy li wér waaye nag la nga xam ne moo doon am jamono ya sunu borom tabaraka wa taala bindee aadama te tabbal ko ajjana kooku moom alxuraan moo ñu xamal ne aajam fii la duggoon waaye génnaat na moo tax foofu amu fi benn règle générale boo xam ne danga naan bii règle la boo xam ne dañ naan moom lañ xotti maanaam dañoo juyoog moom ajjana jooje yi nga xam ne mooy ajjana jin bëgg a dugg ëllëg mooy ajjana ji yàlla bindoon dugal fa aadama dugal ko fa ci kaw ay charte charte yooye ba mu ko matalut mu génne ko indi ko fii ci àdduna ne ko nag duma la ko xañ ba faaw waaye danaa leen tegalaat yaag say sët ay charte yoo xam ne su ngeen góorgóorluwaatee matalaat ko dem dugg foofa aadama matal naag ñamel ne moom ak mboolem yonente ya matal na ñoom ba dugg dem àjjana nun nag noo fi des di jiima kër këri pour delluwaat foofa yanoon borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalal ñu dugg fa te bañ faa génnati ba faw waaye àjjana moom ku fa dugg dootoo génn wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم